waxtu bi jot na ñu tënkal leen xibaar yi fii ci actualité buzz de la semaine comme nuñ ko tàmm rek di defee saa su samedi jotee tey nag lu doy waar la am ca cité des eaux laa koy dooree foofee nag ab tout tànk bu war am ñetti at képp rek moo jógee ko septième étage benn immeuble dal di daanu fu soriwul dara rek pont an bi daram bi nag mi ngi am ni ki démb si àjjuma ji rek si bëccëg bi moom nag tout tànk bi daa ñàkk bakkanam rek si saa si gannaaw rek ba ko sapeur pompier yafane kon mënul wee mënulee woon euh, ko sauver benn yoon euh, waa gendarmerie tamit demoon na ñëw foofee sa gox ba euh, di def rek seen liggéey maanaam constat bi si boobu lee mbir laata rek ñu si ubbi ab l'enquête lu ñeel tout tànk boobee yàlla na yeggalee ndawam ca aljana enquête bi si waa jooju ñu fekkoon rek ñu fat ko euh, ca corniche ba euh, fu janook rek ambassade Japon bi tàmbali naa feeñal ay mbir bu ñu sukkandikoo nag si euh, libération waa jooju ñu faat nga xam ne rek identifié guñu ko da bokk rek si bado yu élire domicile rek si corniche bi enquête bu si sûreté urbaine amal sax daa privilégié rek règlement de compte entre bande las nag da xamle rek ni di révélé ne rek ni meurtre bi daa am ay relance sacrificielle eh, te waa jooju nag ñu fàtte amul domicile fixe te sax eh, buñ sukkandikoo ci xibaar yi moom moomee rek xel mi dafa desoon ba tey rek sañu ñuy jël seen bakkan ci suñu réew mi nga xam ne rek saa su ne dañ ko fiy faral di nemmeeku waaye bi yoon si mbirum Khady Diouf lay wax moom mu jeune marabout ba mu doon bëggante rek faat foofe sa diwaanu sa Thiès quartier Médina fal résultat autopsie yi nag daa findeel rek ni Khady Diouf warnul woon lot benn yoon loolee nag tax na sax ba charge femme bu ko defal test de grossesse bi ba révélé ni rekk dafa won lot dal di janook eh, ñi waa police gannaaw bañ koy laajee si boobule mbir waaye moom nag euh, sage femme bi àndul rek benn yoon ci conclusion autopsie bi gannaaw bam confirmé waatee ni rek euh, kii di Khady Diouf euh, dafa woon noonu loot te sax ñu ngi ko defar rek boobule test de grossesse ci seen poste de santé boobee nekkee ca Medina Fall te dafa rek positif test bi sax ñu ngi ko defee ak ab band urinaire foofu ci seen poste ba te rek positif la révélé loolee nag tax sax ba sage femme bi xamle woon sax ni Euh, wax yebaloon na euh, kii di Khady Diouf ngir mu defi échographie ngir rek ñu gën a am lu leer si grossesse am boobee waaye rek euh, ba mu waroon ñëwaat si poste de santé bi indi résultat yi waaye nag yooyu de résultat du mës a ñëw ndaxte kii di xadi jouf rek du mës a def boobulee écho gannaaw rek ba ko jeune marabu boobee mu doon bëgganteel di wuyoo si turu ba Chérif Assane Fall jëlee bakkanam foofee ca mi dina Fall bu Thiès. ay waa ci mbirum Mame Yacine Fall laay addu moom nag Mame Yacine daa yoroon rek cancer des ovaires ah, moom sax daa mujjee rek ñàkk bakkanam gannaaw ba clinique ba doon faj raté ba ah, si fàttali defoon na moom moomi ab vidéo ba si li ñu génn di si rek ndimbal ji si kanamu autorité yi ngir ñu mën ko dimbale eh, ba mu mën a rek faju moom Mame Yacine Fall ab jaaykatu jën la woon mi nga dëkkoon sax ca diwaanu Géejawaay yal na ko yàlla yërëm. Ah, ba tey rek ngeen di teew lu actualité buzz de la semaine ci Dakar buzz dañuy àddu jëmale ci pandémie coronavirus bu lëmbee àdduna bi ba laal sax suñu réew mi di Sénégal jot fee eh, dal ay doomu aadama si communiqué nag eh, ba mu def démb ci àjjuma ji moom jëwrin bu ñu dënk wàllum wér gu yaram bi Abdoulaye Diouf Sarr daal dinay xamle rek di testé waat nañu yeneen ñeenti doomu aadama yu positif eh, fii ci Sénégal ci bile feebar di coronavirus bi ñeenti ña nag dañoo jógee rek biti réew dugg ci ci ci réew mi lu ñeel nag juróom yi dañu leen wàll maanaam ñu amee feebar bi si biir réew mi rek ñoo leen ko wàll mu xam li ko ni ki ci si àjjuma ji moom jëwrin bu ñu dënk wàllum wér yaram bi Abdoulaye Diouf saar di leen fàttaleel tamit ne rek sañu amee feebar bi fii si Sénégal daal di dinañ si faj rekk lu tolloo ko juróomi aadama ba ñu am wër ba delluwaat rek si seeni ba kër yi Ah, ba tey ci feebaru coronavirus bu gane si Sénégal tiital ba noppi jaaxal kan woo fi yeewoo yëpp loolee nag tax ba ñu taxaw rek ngir bëgg a xeex feebar ah, mu loolee moo waral autorité yi dal di si def seen kéem kattan ba nguuru bu Sénégal sax jël ndogal à travers rek ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ah, dal di rek tëj bépp juma bu nekkee fii si Ndakaaru bu ñu sukkandikoo nag si même suuf si daan def nañu sax ab entretien bu. bu yàggul lool euh, bu feex ferme tamit ak kii di imam na Moussa Samb di imaamu grande mosquée bu Dakar euh, laata rek euh, muy nangu bi mbir gànnaaw ba mu àndule woon rek si bile décision si noonu nag la xam leen ni rek dakkal nañu julli ba juma ya ñuy amal ajjuma foofee si grande mosquée bu Dakar ba rek nouvelle ordre. ba tey rek si juma ya ñu tëjandi fii si Sénégal rawatina si Ndakaaru lépp rek ngir xeex bile feebar gane si ñu di coronavirus bi waaye bile yoon ca Yoff laa yéen laa jëm nga xam ne rek nemmeekoo nañu fa démb rek jàppante si diggante eh, ña fa nekk ak takk derrière gannaaw rek ba ñu opposé wu carrément si bile mbir police nag moo fa wàcc si rek dal di arrêté seen imam ba loolee nag la nanguwul woon ba tax ñu jàppanteeg ñoom ñoom nag imam boobee dañoo gis ne rek dafa euh, deful euh, lu arrêté gouverneur bi di tëj rek bépp juma bu nekkee euh, si ndakaaru bañ ngir bañ rek ndaje yu ñu fay amal bañ gannaaw ba ñu xamle rek na ku nekk rek julle fa dëkk. si yoof laa yéen laay desandi ak police ba arrêté démb si àjjuma ji rek seen imam ba ba tax rekk mu tàngoon jipp loole nag euh, dafa bañ ngir rek lu ñu gis ne dafa bañ a jëfee décision ya ñu tëral loolee nag tax ba lim gu takku si taalibe ya euh, taxaw rek fa yéene jàppante ka takk der ya gannaaw rek ba ñu gisee ni rek euh, bile mbir rafetul benn yoon rafetul rek si gisin te ñoom ñoo ñee di ñu ko nangu loolee rek moo waraloon ñu jàppante fa jàppante métti loolu vidéo bi sax mun ngeen ko suivre si Dakar Buzz si fàttali nag coronavirus bu gane si si suñu réew mi képp rek moo waral ñu jël bile décision di tëj bépp juma ba nouvelle ordre. Ah, ba tey rek si tëjub jumaa yi fii si Sénégal rawatina Dakar waaye bile yoon damay jógee Yoff la yéen dugg rek Masalikul Jinaan foofe tamit démb si àjjuma ji takk der ya ñoo nga fa woon rek ngir tere bépp te dugg fa di fay julee waaye tax ñoom ñoo ñee jot nañoo sax sandi say ay gaz lacrymogène ba noppi rek jot teg loxo sax taskatu xabaar ya fa nekkoon ngir rek bañ ñu filmer jumaa ji rawatina rek jël benn image si alentour jumaa ji Dakar bu set doxantu woon na fa mën ngeen euh, seetaan vidéo bi si suñu chaîne ngir rekk a gën see am ay firndeel. aywa ñu dugg ginnaaw raay noor ba tey rek si bile sujet ak force de l'ordre yu ko tàmbale rek di appliquer arrêté bu porté si tëjub jumaa yi fii si ndakaaru lu koy firndeel nag bokk na tamit si lu am foofee ca ginnaaw raay noor eh, si banlieue dakaroise ba foofee nag imam ba daa taxawoon démb rek di jiite julli ba jumaa ba foofee nag eh, malgré arrêté gouverneur ba Dakar bi waaye nag boobule julli rek yeggul ndaxte police dañu ñu faaw rek eh, wàcc si eh, dal di tasaare rek mbooloo ma fa nekkoon laata ñu leen di arrêté loolee nag eh, jur fa tamit xeex bu métti si diggante fidèle yeeg police ya gannaaw ba ñu rek bëggee woon récupérer seen imam bi si loxo ba takk der yooyu arrêté ko ay grenade sax lacrymogène la ñu yore woon ñoom takk der ya bu ñu sukkandikoo nag si xibaar yu ñu mujjee jot daal nañuy woon rek bàyyi imam bi ba noppi rek ne ko mu jullee fa mu dëkk maanaam rek ci ca euh, këram donte sax gouverneur bu Dakar daal dinay ordonné rek ngir ñu tëj bépp juma bu nekkee si Ndakaaru ca Touba nag di gox bu coronavirus bi njëkk jàppee doomu Sénégal ñu ngi wéyandi rek seen vie comme nañu ko daan euh, defee euh, le xalif général des Mourides si euh, grande mosquée bu Touba sax la jullee démb ci ajjuma ji bu ñu sukkandikoo si information yi ancien premier ministre ba di rek Mahammed Boun Abdallah Dionne tamit si juma bu Touba boobee rek. la jullee ni ki démb si ajjuma ji eh, moom moom muy sax jot naa gisee sax ak xalif général de des mourides Serigne Mountakha Mbacké bu ñu sukkandikoo si même source bi. si dëkk bu sell boobee di Touba laay des ak yéen démb nag waa dayra Mukadimatul Xidma defoon nañu rek ay liquide alcoolisé si buntu jumaa ya yëpp euh, des fois sax ñu nemmeeku woon fa ay masque xalifa général ba nag Serigne Mountakha Mbacké mi ngi àndoon nag porte parole ba Serigne Bass ak ancien premier ministre ba Mahammed Boun Abdallah Dionne loolee nag attiré woon sax attention yooyu yëpp euh, xalifa général ba nag amal na ba mu jullee ba noppi ab discours di expliquer décision wam boobee di honoré julli ba juma ji depuis décision imam yi di éviter rek ndaje yi si noonee rek si kaddu ba imam bi Serigne Mountakha daal nañ eh, xamalaat eh, ndigal ndigal taalibe yi eh, di leen wax rek ngir ñu def moom xalif bi lépp rek loo xam ne ni médecin yi sant nañ leen ko ba mu ca noppee lay woo ñëpp rek ngir ñu ànd ak set te loolu sax moo waraloon rek mu ordonné waa bi ngir rek ñu assuré wér gu yaramu askan wi laata muy ñaan askan wi rekk euh, ngir euh, ñu wëyandeeku ñu moytandeku yenn euh, ndaje yi yàlla dañuy def sax des fois ñuy dawloo safaan ngir rek jublu si lu baax nañu gëm yàlla te moom képp mooy décider si lu ñuy war a jànku wanteel si suñu dund moom mooy tànn ñuy feebar ak ñuy mucc si bile feebar nga xam ne ni rek yàlla buur bi moo ko fi wàccee te lum si namm rek la siy def lu mu lu dal nit daa fekk rek yàlla buur nguur bi namm ko si moom moomee waaye loolu teewul rek ñu jël suñuy précaution mu xamle ko moom xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké laata rek muy xamle ni ku nekk li nga ji rek ngay góob julli e mooy rek ngannaayu jullit donc na bépp jullit jaamu yàlla e ñaan ko rek seen soxla ngir am yërmandeem mu xamle ko démb moom xalif général des mourides ba mu amalee julli pa bi si ajjuma ji ba Dopi. si mbirum euh, coronavirus bi laay desandeeg yéen ba tey waaye bi la yoon rek ak plainte bu jëwriñ bu ñu dënk wàllum wér-gu-yaram bi teg rek si tableau procureur bi jëmali ko rek si ñuy weddi ni coronavirus bi mu ngi si suñu réew mi rawatina si dëkk bu sell boobee di Touba ax ma mbàkke nag bokk na si ñu wuyu ji woon rek ca section euh, de recherche ba mu fa jógee nag la xam le ni ay booru 10 heures la fa dem nekk fa rek ba ay booru 16 heures laaj nañ ko na leen mu ñu baal di koy bàyyi mu ñibbiwaat këram eh, si noonee sax Serigne Ahmad di leeral ni rek kenn gardewu ko à lu ñeel nag ndax coronavirus bi am na Sénégal wala Touba moom nag Serigne Ahmad Mbacké da see xamle rek ni dañu ko ni feebar bi am na donc loolu képp la mën a gëm si noonee nag muy woo askan wi yëpp ngir rek ñu fagaru bu baax a baax te def lépp lu ñu mën a ngir maytandeku rek abile feebar di coronavirus bi. ba tey rek si ñu wuy jiwoon ca section de recherche Mbaye Pekh nag bokkoon na sax si ñu fa jiitu gannaaw rek ba mu gëmmulee woon ne feebar wi am na ba jot see yëkkati ay kaddu moom nag communicateur traditionnel boobu ba mu jógee rek section de recherche la xam leen ni rek ay mal intentionné képp ñoo déformé kaddoom yooyee e mu yëkkati laata sax muy xam leen ni rek waxoon na bépp communicateur traditionnel la rawatina rek kii di Mansour mbay ngir sensibiliser askan wi si bile feebar di coronavirus bi ba mu ca noppee lay xamle rek ne moom moomee sax euh, saa su ne rek day ñaan si sëriñam ngir xeex bile feebar laata muy xamle sax ni rek daa am ñoo xam ne ni rek dañu ko contre ndax lu mu nekk taalibe sëriñ Touba mu xam ko ba mu jógee ca section de recherche moom communicateur traditionnel bu célèbre boobee di Mbaye Pekh ñu wax ci xibaar bu nàkkari bu tab bi rek di Pape Diop ñu gën koo xam si turub Pape Bool bu génn àdduna moom moomee nag mu ngi génn àdduna rek si guddi gi moom sax woykat la woon nekkoon na tamit acteur si série double vie ak kii di Pape Cheikh Diallo si noonee nag ñu koy ñaanal rekk suufu Tuuba woyof ci kawam. talaata ba lee ñu génn la Selbé Ndom wuyu ji woon moom it ca section de recherche foofee ca caserne Samba yi Diallo moom nag selbe ba mu demee rek gendarmerie dañ ko tegal vidéo ba mu doon waate ni bile feebar amul daal di koy ndoor ak moom ba ñu ca noppee la ñu ko laaj si déclaration am yooyee mu siy def si noonu Selbé daal di koy defee rek comme na ko mbay peex defee ni après rek kàddu yam si yëkkati lay doog xam ni rek bile sanitaire la ci àdduna wërngal këpp bam ca noppee nag la xam le ni moom it dana jóg rek taxaw di sensibiliser askan wi ngir rek ñu mën a bàyyi xel bu baax a baax te muy tënde ko bile feebar bam ca noppee nag selbe yemu ca dafa yëkkati rek ay kàddu sànni ko ña nga xamante ne nii ñoo koy critiquer laata rek muy promettre ne dina def lépp la nga xamante ne nii rek moom la njiiti réew mi mag yi Sall bëgg. su ma noppee si voyante boobee di Selbé Ndom damay addu tamit si Gana Messere moom it bokkoon na rek euh, ca ñawaa section de recherche dalal euh, ak lu mu doon wax yépp nag nan mësuñu ko woo rek foofee section de recherche bu Colobane Gana Messere moom moom moomee wuy ji woon na mardi bale ñu génn ba 11h30 jotee jóge fa rek si euh, ay boru 16h30 ñu laaj ko nag si lu tolloo ko juróomi waxtu si déclaration bu mu xamle woon ni rek coronavirus bi amul ci dëkk bu sell boobee eh, di Touba waaye nag daa mujjee rek nangu ne juum na waroon na rek yem di wax si mbirum eh, kii di Serigne Touba ba mu ca noppee la xam le ni tamit mësula dégg njiitu réew mi Macky Sall wax ne rek bile feebar eh, am na fii su ko dëggoon rekk moom du waxee ni ni mel si noonee muy rëccu la mu si waxee tey xam le ni rek dina dëmbale bu baax baax jëwrin bu ñu dënk wàllum wér gu yaram bi si xeex bi daldi yi wàcc rek moom it di sensibiliser askan wi comme rek naka moroom moom ya jaar foofee ca section de recherche Prométhée ba fukki fan ak juróom-ñett si weeru mars atub 2020 bi ñu nekk ba 23h59 minutes jotee rek jëwrin bii di Alioune Sarr daal di ne dakkal bépp roppalaan buy jógee ko wa illaa rek dem si aéroport yu nekkee fii nii si suñu réew mi di Sénégal ba mu des rek vol domestique yi si diggante ay AIBD ak Ziguinchor vol cargo yi évacuation sanitaire yi ak rek vol spéciaux yi nga xamante ne ni dañu leen rek autoriser mesure bi nag daal di ne prendre effet démb ci àjjuma ji ñaar fukki fan ci weeru mars euh, ba rek fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril atub 2020 bu ñu sukkandikoo ci Libération euh, Air Sénégal nag daal dinay jël décision dakka rek bépp vol internationaux ak euh, régionaux yu ñaar fukki fan ci weeru mars ak rek fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril atub bi ñu nekk ak coronavirus bu lëmbi àdduna bi tiital ba noppi jaaxal askanu Sénégal lay desandi depuis nag ba si ñu génn vidéo di circuler rek si réseaux sociaux yi ñu si gis ay doomu aadama di ubbi coran bi rek di wane ab karaw bu ñu ne rek si lañ ko fekk gannaaw ba kenn xam leen da koo génte ne karawu yenent bi la loolee rek mooy fajandi lii di coronavirus bi loolee nag neexul benn yoon ñenn si oustaz yi ba kii di oustaz Alioune Sall nag àdduna si rafetluwul benn yoon bile mbir moom nag la moo xam ne rek moo ni ñu ngi tooñ kii di yónnent bi ndaxte rek moom moomee keroog ba sëttam wa feebaree woon euh, dina jëfandikoo kawaram bu fekkoone loolu la euh, laata rek muy xam ni dan dara mënatu ko jommal moom moomee oustaz Alioune Sall ndax rek daa jommi ba noppi si yàlla buur bi ak yónnent bi ba noppi rek di fàttali sax ni te sax moom moomee ñàkk bakkanam euh, si corona moo ko gën a di appliquer li nga xam ñay koy wax fan lañ ana fan lañu koy jëlee mu xam li ko si ab vidéo moom oustaz Alioune Sall gannaaw ba mu rafetluwul wee benn yoon rek boobule vidéo di circuler di wax li ni mel si yonent bu tedd bi. Ah, ba tey rek si bile feebar nga xam ne rek tàmbali nañoo gis ña si dugal seen loxo di làmb seen poste rek def si ba ñu mun a xeex coronavirus bi gane si Sénégal milliardaire chinois bi di Jack Ma nag nekk fondateuru Alibaba desul ginnaaw benn yoon si li nu mel gannaaw rek ba mu engagé woo ngir def euh, don wu vingt mille kits de diagnostic euh, cent mille masques ak mille combinaisons protectrices bépp état rek euh, africain loolu yëpp. nag ngir jàppale leen ko ci xeexub bile feebar di coronavirus bi moom nag ma moo gën a riche sax euh, ca diwaanu si ci ndoxteelu weer wi sax euh, yónnee woon na États-Unis ay équipements médicaux euh, ba noppi rek engagé wu ngir distribuer ñaari millions masques protectrice ca Europe équipement yamu destiné nag réewub Afrique yi daañu ko livré Éthiopie si noonee nag jëwrin bu njëkk ba di abi di euh, Ahmed moom mooy rek euh, supervisé séddale mi moo expliqué ko moom mooy Diakma laata mi xam le ni en tant que membre communauté mondiale bi euh, da doon rek doon lu irresponsable si seen part bu ñu toogee rek di ignorer fee yi wa ilaa rek bañ a agir ndaxte rek seen wareef képp la ñu def lu ñeen nag monsieur bi moo confirmé information bi si ab série de Twitter ba noppi rek di rafetlu lool boobule acte rek euh, Jack Ma def di rek euh, dimbale bépp état africain ci bile feebar di coronavirus bi. ma wax leen ko léegi depuis ba coronavirus bi ganasee ba tey rek gaa yaa ngi lamb seen poche ngir jàppale ko askan wi bañ fi mun a xeex bile pandémie ba tey rek moo tax si laay desandeek yéen gannaaw nag xalifa général des mourides bu ko ubbi rek daal di si joxe 200 millions ci suñuy koppar ñu ne moo ko ci Youssou Ndour bu gaan Guèye Dany ak yi ñeneen PDG bu war wari nag daal nay joxe participation am daal di lamb poche am nag def si biir si xeex ko ba coronavirus bi moom nag. lu ko 50 millions maanaam juróom fukki millions si suñuy koppar la rek def si bile xeexu ba coronavirus bi jàppale ko rekk état bi. ba tey rek si lépp lu ñuy def ngir xeex euh, propagation gu virus bi si suñu réew mi ministre euh, de l' intérieur daal dina ni rek ñu dak defee cérémonie familiale yi si biir këyit kër yi euh, te rek moytandiku ndaje yu rëy yi ngir rek appliquer mesures yu ñu tere ngir éviter bi les feebar di coronavirus bi si noonu nag ministre bi daal di leeral rek dañoo tere bépp rassemblement public tey naan xew-xew yu si mel ni dëj ngénte mariage wala li nu mel rek. na si organisateur yi di veiller bu baax a baax maanaam nañu si bàyyandi xel bu ñu sukkandikoo ba tey rek si Aly Ngouille Ndiaye ndaje yooyu si lieu public yi ñu ko rek euh, tere si diggante fukki fan ak ñeent si weeru mars jàpp fukki fan nag ñeent si euh, weeru avril buy ñëw te yile tere nag bàyyiwul euh, bépp fenn fu nga xam ne ni rek day dajale ay doomu aadama moo xam ay restaurant stade wala yeneen i lieu yoo xam ne ni rek doomu aadama yi dañ fay faral di aywa suñuy làmb seen poste rek di def si xeexu ba coronavirus bi faramareen bi Waly Ballago Seck desu si gannaaw moom naka daal dina joxe juróomi million si suñuy koppar nguuru ba Sénégal lépp si xeexu ba coronavirus bi ba noppi rek demandé kii di DJ Boubs ngir ñu def si sax ab téléthon ba mën a gën a dajale koppar moom nag Waly Ballago Seck ba mu noppee sax la ko Pape Diouf dal di feelu moom it Pape Diouf dal di joxe rek juróom benn million si suñuy koppar rek ni xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké moo door lépp rek dal di joxe 200 millions Youssou Ndour topp si ak ay produits sanitaires yu yemook rek fukki million si suñuy koppar laata Wally Ballago Seck ak kii di Pape Diouf di si toppandi suñu international sénégalais bi Sadio Mané moom it rek daal dinay wane boppam rek si bile xeexu ba coronavirus da gannaaw ba mu lambee poosam moom tamit attaquant sénégalais bi e lu tollook rek quarante cinq mille euros maanaam rek trente millions si suñu koppar la jël rek dimbale ko nguur gi lépp rek si xeex bile feebar di coronavirus bu gane si suñu réew mii nga xam ne rek jaaxal na askan wi yëpp ba noppi. noppi rek eh, tiital leen bu baax a baax. aywa suñu international sénégalais boobee sax Sadio Mané laa koy tëjee ak Cheikhou Kouyaté guléet nag moom Sadio Mané di addu si relation ak Queen biis mun nañoo ne sa guléet muy addu si vie privée moom nag si directu Cheikhou Kouyaté bi eh, la Sadio defee rek ay révélation si vie privée am yooyee eh, di rek relation amoureuse ak wéykat bi nii di Queen Biz si ab laaju benn fleur nag eh, bu bëggoon a xam ba xam ndax moom moomee Sadio Mané dina. takk kii di Queen Biz la international sénégalais bi tontoo rek di xamle ne Queen Biz xaritam képp la bu weesoo loolu ñoom ñaar rek euh, amul dara lu nekk seen diggante euh, ay xarita képp lañu moom Sadio Mané ak euh, Queen Biz mu xam xamle ko laata rek muy takki ne sax kii di Cheikhou Kouyaté si direct ba mu doon amal mu ngoo ko boobule xibaar laa koy ndar képp di leen jaajëfal di jaajëfal tamit Seydou si mu fare woon si caméra bi di leen jox dig samedi jërë ngeen jëf woy leen di ànd ak programme Dakar